Euh, euh, on a pris des critères politiques des critères géographiques on a pris aussi des personnes ressources donc rien n'est pas donc il fallait nous regrouper wu nous nous présentions, nous wu aussi nous, euh, ñun dire y a eu quelques petites frictions ce qui est normal hein, en matière politique Investir en matière politique day a des problèmes waaye nit ñi politiquement aussi dañu am dépassement ba nga xam ne loolu bu weesoo weesu la donc ñun foofu la ñu toll loolu weesu na ma si profité d'ailleurs bu ma ginnaaw bi ma remercier le président de la république moom mi nga xam ni tey tànn nañu si biir ay gor parce que fii ñëpp mérité woon nañ nekk loolu ah, ma si remercier aussi sincèrement le ministre Seydou Gueye sama mag vraiment mu jàppale ma si mbir mi comme ni ma la waxee njaboot gi amoon na ay réeroo amoon na ay problème mais normal léegi bo gisee ñepp ngi suñu ginaaw ni taxaw gis ngeen sama grande sœur ngi nii ndey sënam xale APR ñi ngi taxaw xalé réew mi ñi ngi taxaw xalé CATB ñi ngi taxaw ñepp nek ben say jëm Allah sou de la mairie dafa na loolu ñoon ñaan yalla te loolu amna te loolu mo waraloon dajji bi tay du leneen donc tok nañu waxtaan nañu xewlu entre Boy Médinois donc ça s'est très bien passé content ma ngi remercier ñi fi nekkon ñëpp bo gisee da ngay gis ne sorte de retrouvaille la de la grande famille Euh, euh, de la paire voilà du Beno en fait mais de nous qui se ay sorties yoo Nous sommes ay alliés nous ay nit yu ils ont la victoire avant de jouer nous ne def match est-ce que c'est parce que l'excès de confiance ça peut sachant que celui qui est devant vous n'est pas voilà xam nga bu ma la retourné question bi aussi manque de confiance aussi baaxul dañuy wax dëgg ñun xam nga dañuy politique dañuy politique te fii ay kàngamu politique ñoo fi nekk. boo gisee ñi taxaw sama wet ay Sidi Sam ay Ndeye Seynabou Ndour ay ñoom góor gi Ndoye ah ay xale yi nekk si man ay ñoom cubb ñoom ngañ jàmba ñooñu ay kàngam lañ si politique lu ñuy def defantuñu dañuy dañuy calculer dañuy xool li ñuy def. bi ñu xaymaa li ñuy li ñuy def xam nañ ne ñun mën nañu am victoire moo tax saa su nee ma naan ñun xam nañ ne ndam mën nañ ko am waaye liñ siy teg rek moo incha allah ñun ay julit lañu dañu gëm li ñu war a gëm donc yàlla yàlla bu mu weddi waaye bu yàlla weddiwul maire bi moom taxañ nañ ko ba pare. incha allah toujours dañuy dégg nga naan Seydou Gueye Seydou Gueye sa relation ak moom lan la. mais d'excellente relation mais loolu amul benn problème xam nga nit ñi fii gars yi dañu mën a jaxase lu nekk la ñuy wax. on a eu euh, des investitures amul ben deuk dans le monde ñi nga xam ñi ngi saytu affaire politique amul ben deuk muy États-Unis France ak fii France bientôt dans deux jours il y aura un grand débat entre des candidats demal déglu lu ñuy wax Dañu bokk famille politique lañu dóorante waxante mais après day jeex Lolu moy grandeur d'homme Seydou Gueye ak man nous sommes des hommes d'État et nous sommes des hommes de l'État c'est important nous sommes des hommes d'État et nous sommes des hommes de l'État Cela veut dire que nous tënku ci wax dañuy Nous ci kilifa si kilifa waxee dañ koy nous ñun ñaar ñëpp bu Nous nous am nañu grandeur d'âme grandeur d'esprit boo xam li jeex mais xoolal xale yi sànq nous gis ngeen ma ñoom c'est fini lolu bu gars yi nekk di jaxase xelu nit ñi defe ne lolu mën nañ jaar pour pour victoire xadimal suñu victoire on aura la victoire Insha allah la famille de Bonne Bokk Yakar est restée unie restera unie jusqu'au soir du 23 janvier 2022 Insha allah